ñëwul dañuy wax lu gàtt rek d'abord di leen sant di leen gërëm ndax taxawaay bii nga xam ni Macky Sall dafa bàyyi ba 11 heures et doog a jot mu doog a wax ni autorisé na ko jàpp ni yéen bu ko autorisé à la dernière minute du ngeen ñëw taxaw pour wan ko ni jaay dooleem bi dafa ëpp kenn mënatu la nangu Macky Sall di nu jaay doole kon junniy nit ñoo nekk ci kaso ci jamono yi ñuy wax ak yéen junniy sénégalais. yoo xam ne li tax ñu nekk ci kaso bi dañoo bëgg benn nit bu tudd Ousmane Sonko loolu mooy dëgg junniy nit yi nekk ci kaso bi yëpp la leen fa tax a tëdd mooy dañ leen a seppi ci askan wi nit ñii dañoo bëgg Ousmane Sonko kon nañ leen tëj ci kaso bi pour yaakaar ne mën nañoo wàññi doole Ousmane Sonko Ousmane Sonko Ousmane Sonko li may tëje mooy bu sénégalais yi nelaw Macky Sall li muy jéem lépp mooy bëggul Ousmane Sonko nekk candidat en 2024 li ñu bëgg mooy sunu bakkan lan ci teg sunu bakkan lan ci teg sunu bakkan lan ci teg sunu bakkan lan lan ci teg

wuti ay privilèges taxuñu jóg li ñu tax a jóg mooy développer le peuple développer le Sénégal avec ñi nga xam ni gëm nañu Sénégal muy yéen ñi tàccu leen seen bopp. Ce peuple, on vous respecte. Je disais à quelqu'un, au président Habib, Maniko, Nyamna, gaz lacrymogène pour Ousmane Gom, na gaz lacrymogène pour Mbaye ñam naa gaz lacrymogène bu Abdoulaye Daouda Diallo ñam naa gaz lacrymogène bu Aly Ngouille Ndiaye ñam naa gaz lacrymogène bu Antoine Diome tey nag ñoo ngi demandé à Sidiki Kaba nga xam ni danga xam ci droit de l'homme na fexe ba lu mel nii mu koy multiplier le peuple sénégalais mën di génn di exprimer li nga xam ni moo leen naqadi Pendant longtemps, on a voulu nous opposer aux forces de l'ordre, à ces policiers, à ces gendarmes. Je suis militaire, je sais ce qu'ils subissent. On ne peut pas nous opposer à eux. Ce sont nos frères et vous voyez comment ils encadrent cette manifestation. Lii moo war continuer parce que lii la démocratie demandait. Et nos respects à ces forces de l'ordre. Notre combat du ñun ak yéen, sunu combat ñun la président de la république Macky Sall bi nga xam ni képp kuy opposant mu bëgg naa sa xal li nga xam ni mooy sa projet projet président Ousmane Sonko kenn mënu ko nasaxal na ko libéré on exprime notre inquiétude ci li nga xam ni moo nekk di daw ci réseau sociaux yi concernant son état de santé ñun ñi ñëpp jéem nañu ba tàyyi wut ay permission pour dem gisi ko ñu interdire ñu ko en tout cas le président Macky Sall maa ngi koy interpeller solennellement na libérer le président Ousmane Sonko mu mën a ñibbi këram ci wetu ay njabootam na libérer Aliou Sané na libérer tous les détenus politiques ñoo ngi dem ci élection présidentielle Ousmane Sonko est candidat et comme nous tous les autres candidats nañu bàyyi ñu préparer élection et le peuple souverain que vous êtes les seuls habilités à choisir votre prochain président et c'est pas à lui de vous dicter qui vous devez choisir encore une fois je vous exprime mon admiration mon respect et na ngeen continuer comme tey déterminer wu Le combat, on va le gagner. Je vous remercie. Merci beaucoup.